suñu ñaata doomu dëkk ñooy toog fii ñu seen liggéey te boobu jamono am ay cent personnes yu nekk Sénégal suñu nguur di suñu est-ce que xam ngeen ne système bi ñi ci nekk ñu personnes parmi 19 millions de Sénégalais cent personnes sont en otage ba pare nag léegi di suñu police ak suñu gendarmerie dinañ jox ordre illégal manifestement illégal aussi loolu biñ leen seen place histoire Sénégal biñ leen seen seen seen seen seen seen wàll histoire senegal di wax rek lu gàtt que ñun Pastef la ñu nekk le président Ousmane Sonko lañ àndal ci politique du ñu tiit du ñu raflet duñu ragal kaso laa génne démb tey jii nii suba prévoir naa pour dugaat kaso événement bi passé doon ngeen ma bal ci bopp bal pusale ci bopp bii paa teg ma canon ngeen mako mais na leer ni ben affaire heureux bu simple motax Je suis ma heure que ni leer na ni Sénégal pour Je bu ñu fekk Sénégal bu baax man ci la et cette dignité là ken duñ ko perdre et cette dignité là nous koy continuer de def biir Sénégal parce que information bi ngeen jox fausse gis suñu force de défense de sécurité moi les le maintien de l'ordre les forces de l'ordre comment dem ñu taxaw bunt président Sonko di ko barricadé Là, lañ ñu jox dañ ni carrément le président Macky Sall xam na ni Ousmane Sonko bu ñàkkee bakkanam mu génn réewu Sénégal Moi, tax mu joxe instruction comme quoi que police yi ma dem di garder mais loolu c'est c'est archiment faux c'est pas vrai du dëgg dañ ko bëgg a ay liberté dès dañ ko bëgg xam ay droit tout loolu duñ ko nangu motax may résister bu Ousmane Sonko ak Macky man Bilal dina ak mom. bu ak mom man dina ak parce que lim ñu def C'est sa pour ce jeunesse programme ci ñom lu na ebal dina ko li nga loolu emploi la a créer ci Sénégal li nga def ci arme ñaat emploi des jeunes le ci Sénégal je pense que tey jeunesse bi boo leen équipé woon kon tey du mujj continuer continuer sa kaw li gën a grave na ngeen koy def au lieu moom mu jàppale waa parteem jim leen dimbali sax waa APR mën am dara du ko def de li muy def suba ngoon mooy lan mooy na fekk ku nekk Pastef mu dem décroché la fii laa toog ñu tegal mu audio Marème Faye Sall je dis bien Marème Faye Sall lu mu wax indilee ma le maire ko Keur Sud mu ñëw rek sama kër te bis boo ko weddee ma teg audio bi ci mbedd bi ñëpp dégg ñoom ñëpp jot ci bu koy wedd may teg audio bi ñëpp di si jot indi lee ma la maire de Keur Massar Sud mu ñëw reer sama kër ak président parce que am na lu ñu ko pré prépare pour jox ko du ma du ma limagum sax tur xaalis bi parce que wala may xaar tuuti juste tuuti yooyu nga nar a bàyyi ñun duñ nekk ñu nit ñu jaay suñu ngor duñu ay jaam boo gisee bu boo gisee man ma nekk maire te boo xaale di xeex may xeex parce que dama bëgg woon jeunesse bi yéen du ñu gën a gore ci àdduna Pastef nekkul parti boo xamante ni di lay jiital ba fa toog këram la pour en nekk démb président Mansour waree na ko biir Mbàkke ndax téye nañ baar na yoon yëpp di ko doo dem Mbàkke mais force dafa force dem Mbàkke parce que jeunesse bi lay waxal te duñ mus a trahir duñ mus a duñ mus a wan ñu wër mbirum jaam moo tax moom moo gën a sonn li am nag ci politique senegal mus ñu koo gis nit ku dem cees jël lam-lam wele tawa njiita Njaasaan Ndiassane Lam-Lam Njaxate ñëpp yëpp mu jëf ay kaar indi leen Thiès dem ba Kër Thion Sarr dem jël ay kaar indi leen cees neen day daan def day def lancement de programme day meeting ñu nangul ko ko ci réew mais Ousmane Sonko mi la rombee cent mille voix Touba ñu day meeting ngeen ko di fi amee. kel xont da ngeen ñu rusloo mais nag ci rusloo ñu ngeen dëkk amul lu ngeen ñu deful pour ñu wuy si leen. fii nga ñuy ñëw naan da ngeen def ak ñun bourse familiale ku ne xam na ni corruption familiale la cib bu la ñu jiima mu mun ñu leen gëm li réew mi manqué dafa bari erreur yi ngeen def mun ñu leen ko pardonner absence patriotique bi nekk seen mun ñu leen ko pardonner parce que trop c'est trop ñun li ngi nekkee ci senegal dafa am lu taxoon ñu joxe Sénégal bu Sénégal mën a dépasser yeneen pays africains yëpp mais tey ñu bokk ci les vingt cinq pauvres yi gën a pauvre ci àdduna te am richesse boo xam te ni bokk nañ ci vingt cinq pays yi ko amul ci àdduna lépp ngi Sénégal tey mais boo koy wax ni ngi sax day mel léeb ak lippoon la parce que ñu si gis dara kon nag ñu ngi waxaat ni na mujj tey ngeen may tegaat loxo man du ma meer bu ñu jàpp man duma meer bu ñu tëj kaso man Kër saar laa jiite Kër Massar na su ma nee moom laa jiite saabu veut tout dire loolu ça veut tout man heureusement duma meer boo xam te ne population da nga koo jéppi man duma meer moom population da nga koo man maay meer population gën a bëgg ci senegal te nag lii may wax nii dinaa ko waxaat fii tay ngeen koy dégg ma li ma waxoon démb nii bu ma tëjee vingt-quatre heures te keur Massar bi ma nek yënguwul suma agge ma démissioné ba xamna xam naa ma fal fa lañ ma tek xamna ban respect lañ ma jox te na mujj tey asalaamaaleykum wa rahmatullah Dakar 24 Info, l'information sur mesure.